لا الحاج اي ايدغا بسم الله waay tey wàllum pétrole bi ak gaz bi lée na jur jàmm termine yéene kaay ne waa Sénégal day ndax wàllum koom-koomam bi ah ndax daa feebar waay wàllum économie bi ah ma ne la laaj woowee waaw en tout cas laaj day bëri na dé te jar na ko nag yi nga xam kon moom la Mamadou Lamine Diallo président mouvement tekki bi lée daal di kon yëkkati ndaxte moom Diallo jëri nguur gi day la mu yoree nag maanaam kon ci ay bor di ay arrière day fii ci biir réew mi alal ji nga xam ne nag moo a génn ca pétrole ba gaz la a génn day président Macky Sall waaw na di ca lef waaw waaw ndaxte lim bañ nag fi mu nekk nii mooy Sénégal day daanu ba ci lootu nag laa la wax fayit comme kër gu ngent kër gu ngent gis nga président Macky Sall day waaw loi de finance 2018 bi voté nañ ko xam ne ne kon maara day daal di ko defee dara baaxu ca ma ne la président Macky Sall ci boppam daal di nañ jox nañ ndigal di autorisation mu daal di leb daanaka junni ak juróomi ay milliards ilaha illallah mille cinq eh way samba sàll ngaari lam tooro parce keesu nguur gi kat réew fi mu nii moo toll foo xam ne ci wàllum xaalis waaw jege ne nag daloon ca 1992 plan Mamadou Lamine Lumba ak Sakho le plan Sakho Lumba waaw daanaka la réew mi toll ah waaw neex na xari laa wax il faut mu dem nag lebi kon xaalis ngir dalee nga xam ne maanaam kon gouvernement bu jonn bi la ko ak Amadou Ba waaw waaye itam juróom fukk ak ñaar ci ay milliards yi loolee Macky Sall ngir mu masqué ko daal di koy nëbb daf yëngal ak yooyee il faut mu dem lebi nag ay milliards milliards. la ilaha illallah njëkkante bi nga xam ne kon président de la république mi koy njëkkante di def ay accord signé ca diwaanu Mauritanie gée ca gaz ba ca ndar waaw loolu rek la de teew Macky Sall kon ci kon ca diwaanu Mauritanie gée kon le pays va mal mi nekk nii daal leb xaalis lebal lebal lebal lebal lebal lebal bor yaa bari de mënootu ci dara exemple exemple ba ma leen di jox rek mooy wàllu njàng mu kawe la Macky nangu na ne xaalis conseil ba de lu toll ak ñaar fukk kon ci ay doomu aadama de ñoo fa ne di ay mambar président Macky Sall ci tey mooy yéene waaw nee gis nga bu la falee gox waaw waroo faa kenn doole laa wax wàllum dictature président waxal ca kaw Macky Sall moo ci Vox Populi nee yow ñu fal la maire wala président conseil départemental waaw waroo noot ak a jaay doole ñi nga xam ne ñoom nga jiite waaye fal la nga def sa bopp jimbóor di buur di bum di bumi di affecté ñi àndul ak yow waaye président maki dundal waay maki Sall nee na ci vox populi déggoo leen ma de waruñ laa fal nga jël sa doole jooje sa pouvoir bi waaw di ko dóoree ñi nga xam ne maanaam kon ñoom ñoo la fal waaye balaa ngay santaane sangu day day fekk ngay raggu ba nupp ah, waaw ñu yéene kaay ne yow aw réew moo xam ne day waaw xaalis ba nga xam ne moo nekk ca caisse d'avance ca maire bu Ndakaaru Ndiaye jël Diop waaw dem ba jar ñuy ade kon maire de la capitale di Khalifa Sall un milliard 800 te yow juróom fukki milliards ak ñaar 52 milliards ñu koy def nag ci carte d'identité électeurs yi lée ay jafe-jafeem te defar ga séddale carte yi day ca ministère intérieur googu daal koy yóbbu transport yéene kaa gi waaye mbirum carte électeurs yooyu waaw nekkul Daouda Diallo kese direction générale des élections ak waa daaf daaf ne daaf ñoom ñi nga xam ne kon ñoom lañ dénkoon séddale ga wal fadri ne tojaange yi nga xam ne nag suñu ministre de l'intérieur ba ca Aly Ngouille Ndiaye mii jamonoy mag yéene kaay Sidi Lamine Niass ne Sénégal day waaw yàgg nañoo am nag ay ministre de l'intérieur yoo xam ne day dañuy noppee noppee noppee noppi ne bat ba mel ni ba mel daal duñu wax duñu waaxu waaye na ci noonee waaw le Sénégal tam yàgg amee ay ministre de l'intérieur yoo xam ne day mbele mbele rek mbele mbele rek wax wax wax ba mel ni ay seko nag laa la wax ilaha illallah parce que nag Abdoulaye Daouda Diallo mii ah. lu ko waaye mën a waxal dane woon pat daawul wax mode silencieux ba yenn ci waaye affaire sax naan daa yëgul waa Podor waaye Aly Ngouille Ndiaye mii ah. la mu waxe desesi bi ma la ëpp na ci ministre l'intérieur ndaxte Aly Ngouille Ndiaye dane danaa def sama kéem talaay kattan day ba Macky Sall fallu ci premier tour eh way Samba ñu ne déet ni waay nguy ne danaa a eh def sama kéem talaay kattan day ba ñu jot seeni carte électeur eh ba dem votel Macky eh way samba ñu ne déet ni waay nguy ne lii de démb la ko wax bañ ko laajee looloo garaaw nguy ne la ma waxoon daal teggiwuma ci dara maa ko wax lii la nguy wax moom Ali nguy Ndiaye waaw wal fajri ne waaye itam ngi fàttali ku dey ministre de l'intérieur Bekaay Diop ñeenti fan ci weeru février waaw màggalu Tuuba la woon de ca cérémonie officielle wala Bekaay toog ne sëriñ bi bi may ñëw nee nga ma ma génnee sarax ba ma ko génnee ci yoon bi waaye woote na après ñu ne ma xale bu jigéen ba deewul ñu ne deni waay bex moom Bekaay Diop waaw ne neexul ba neexul mais Touba affaire illallah Madiang Khary Dieng mi nekkoon ministre de l'intérieur waaw daal di jël bal bi nga xam ne ñoo moo rey maître Babacar Seye def ko ci benn mouchoir ordinaire ñëw taxaw ci kanamu RTS ne ma ngoy présenté Abdou Diouf la ilaha ay liyeeg naam ñu teg leen loxo l'observateur ne gis nga élection présidentielle yi ak werante bi waaw Abdoulaye Wade day dana jàkkaarloog Macky de maa la ko wax Matas si Diallo ci yéene ci mën kay ne Idrissa Seck day dañ koy tuumaal jaxate-jaxate ne ca Kayar Yankhoba Diattara ne c'est pas vrai te nag danañu porter plainte de ay sos la Dieng Farba Sarr ci l'observateur ne Idrissa Seck daal boo bëggee dégg dëgg wérul Sayer Mangane adjoint maire ca Thiès waaw nee na Macky ay suxam daal lu ñu mënul ci Idrissa Seck mi la nekkul na daal si laa koy mën tribune yéene kaay ne Bamba Fall day ci rajo kankan yi wax weer dina ko de Bamba Fall nee na may taxaw di wax ak benn candidat laa am mooy ngi Sénégal Erdogan waaw ñëw na fu mu nameewul dara enquête yéene kaay ne yi nga xam ne kon ñu ngi leen di jël tay tay ñu ngi leen di rëbb de vox populi looloo teree nelaw instant bi askanu Sénégal ëpp na li ëpp kay réew mi quotidien nee na ginnaaw mbeng mi ne woon douanier la te du douanier waaw beneen soxna daanu ne de kii kay jigéen la foo douanier teg nañ ko loxo daanu nañu de boo sàgganee danañ leen te ñaari at benn la ñuy <laughs> waaye bu dee kër buur ñooy tappale réew ma koy waxaale may foo chargé de mission au palais tax na ne la alaaji tëjal. mas